rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi nuyu képp ku jàkkarloo ak man di la nuyu ci turu sunu yaakaar teeg ëllëg di alxaaji maam na Mbakke moom sëriñ Seex bal Balla lépp ci ndigalam lay xewe waaye ku ne xam na ne moom itam lu muy jëf lu nekk ci ndigal rek la koy teg mu jële ndigal ci ca Cheikh Mouhamadinil Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér jële ko ci way juróom wa sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ khalifa borom daar musse yalla na fi yàgg yàgg te wér ndigal la wacc ci ci sunu kaw ñu ko ak mbokki taalibe yi fii nekk Pekes ak tundu yu ko wër muy bis bo xamne da ko fe tambali depuis 2006 di bisub gàmmu Pekes di bisub sante Serigne Touba di bisub islam ren jiit mu japp ko la 4 mai insha allah rabbi bis bobu nak mo waral jotaay bi tay kon ñu ngi yëkkati sun kaddu ci turam ak ci sunturu bopp ak ci turu njaboot gi yépp bàyyiwul kenn di ci woo bépp jullit bépp dëkkandoo bépp mbokk bépp xarit bépp wóolare képp ku naan ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah nga xam ne ku ne am nga bis waaye ñun bisu pekkees bi rek mooy sunu bis kon nag bàyyiwuñ ci kenn lépp lépp maanaam nu waaye mën a bokk man muy ci wàllu baay muy ci wàllu kër ndey wala ngay xarit wala ngay dëkkandoo wala ngay wóolare nga xam ne bis bii maa ngi la ci woote moom rek la am ñi nga xam ne ñooy ñoom la ma sëñ Tuubaa booleel mu mel na maay seen jawriñ te ñun ñëpp sëñ Tuubaa rek mooy sunu jawriñ ñooñu moom maa ngi leen ciy soññi kenn ku nekk ñu xam ne koomu lu dul lenn da nga cay def la nga am mooy tax boo legee lenn loolu ful la nga bëggoon te bis bi képp moom la ñu am kon ñu ngi soññ fooy mën a nekk di ci woo nag ñëpp nag bàyyi wunu kenn bis bi ku ne xam na ne nam daa demee day mel ne benn bis waaye ñaar la ndax ajjuma ji ci la bisub Cheikh Ibrahima Fall te ñoo ko ñoo ko tudde sëñ Cheikh Ibrahima Fall pour pour pastéefam ba wàllu ñu ci wàllu pastéefam ba amoon ci diggam ak sëñ Tuubaa ñu ñu ñu barkeloo ko ci suñ diggante ak moom ci biir bisub Cheikh Ibrahima Fall boobu nag am njabootam gu fi nekk di sëriñ sa dix kan ñu ànd ko ak moom daa ko ànd ak moom yàlla na ko yàlla dolli leer ren njabootu boppam nekk bi waaye jëmmam rek moo fi manqué ci zaahir waaye taxawaayu moom dara du manqué nan ko daa àndeek moom lan koy àndeeku njabootam loolu mooy trois mais incha allahu rabbi bu nu xëyee nag mooy bisu gàmmo gi ñu ànd ko mbooloo mépp nag ñu ànd ko mbooloo dundale ko ni ko Sëñ Tuubaa rek bëgge comme ni ko ñi ma jiitu ñëpp waxee soññ ci daara alxuraan yëpp bàyyiwunu jenn daara ak daara xaside yëpp bàyyiwunu jenn daara ak ahlu zikrullah yëpp bàyyiwunu benn kuréel képp ku naan képp ku man astaghfirullah alazim rek wala allahuma salli ala sayyidina muhammadin soxla na la ca bis ba ndax sàkkuñ ci dudul ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla mooy ngërëmul Sëñ Tuubaa te lañ ci sàkkul lan yéene suñu bopp moom lañ yéene ñëpp kon góor ak jigéen mag a ndaw kenn ku ne ñu ngi la ci woo waa Pekes nag moom seen yëfi bopp ndax mbir moom bu ne fan lay tëgg nga ne ci sama kër lay xewe kon yaa ci yaa ci jiitu ñëpp yaa ci war a jiitu ñëpp yaa ci war a man ñëpp kon ñoom itam ñu ngi leen ci soññiwaat bu baax a baax a baax di góor di jigéen di mag i di ndaw ñu ànd lépp ñu xam ne eh, bis bis bi daal moom rek mooy suñu itte moom dong mooy suñu ite te it ngërëmul sëñ bi la ñuy sàkku te dunoo gëm ne ngërëmul sëñ moom ñun xamuñu fan koy sàkkoo mooy fi mu ñu digg rek joxuñ ñu foofu lañ foofu lañ gëm ne fa ko war a mën a sàkku fa lañ ko war a mën a amee kon nag maa ngi ci woo ñëpp bàyyiwuma kenn mboolem autorité yi ñu ngi leen di woo góor ci am wax na ko léegi bàyyiwuru ben autorité muy maire bi muy Jibril Mbay muy bép responsable politique bu yëngu timit ak ya xam parti bo mëna a ñi ngi ñi ñu ñu ngi la koy yëgal ndax ñun bis bi ni woté bis islam la bis ñepp la kon nak ñi ngi ci tàllal loxo ñepp di wat timit jigeen ñi bu baaxa baaxa baax ci seen taxawaayu rafet ya xam ne ko am ci lepp nag am ko ci bis bi ak la ko jiitu ak tertu bi ak lépp ñu ngi leen ci wat jëwri ñi jigeen ñepp damay bañalim waaye kenn ku nekk rek ni ko màggat waxee kenn ku ne cër boo amoon ci bis bi dafa yokk waaye dara dara dara dara du ca wàññeeku ndax ma damaa nekk ci bopp bi mel na jëwriñ ji waaye bis bis moom kenn ko moom muy alaaji maam Cerno moom moom Sëñ Seexu Balla lu ci waaye di def defaloo ma ko moom ngay defaloo te moom jàpp naa ne gëm naa ne lépp loo ko waaye defal lu nekk da nga gis yool bu incha allah rabbi yàlla nañ ko fekkee tal ko te te defe ko ni ko sëriñ bi bëggee te daray seytaane bañ cee amu yoon daray diinit bañ cee bañ cee génn kon nag lépp lu ci waay di defit nga def ko ngir yàlla lépp lu ci waay def nga xam ne daal bisu diine la ci ci biir ak ci bitti bis bisub diine nag dafa war a dëppoo ak diine loolu lañ ciy sàkku ci ñëpp maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm lépp lu manque ci wax ji maa ngi ko waaye li am solo objectif de wax ci mooy bis la boo xam ne dañ ci woo ñëpp amuñu xaj ak seen murit ak tijaan ak xaajar ak laayeen ak foo mën a bokk ñu ngi la ciy woo te xam ne bis bi ñoo ko bokk ñu ànd ko mboolem tund Pekes it bàyyiwun benn dëkk benn dëkk bàyyiwun benn kilifa diine it te kilifa diine yi nga xam ne ñoom lañ bokkal Sëñ Tuubaa kilifa diine yi nga xam ne ñoom lañ bokkal diine ji ki fu waay nekk ak tariixa boo mën a nekk rek ñu ngi lay jox su wàccuwaay di la fekk di la jox di la wax ne bis ñu ngi la ci woo ñu pour ànd ko ak yow incha allah rabbi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaye nag xam naa ñuy wax de lu ñuy fàttaliku de xam naa bis boo xam ne bii kenn fàttewu waaye dañu jot nag ndigal ci ki nga xam ni mooy Serigne Mountakha Mbacké toog toog ay xaadimu rasuul waaye nag mu jot li ndigal la mu jaar ci ki nga xam ne moo yor yére yi borom daaru yi muy Serigne Bassirou Anta Niang waaye nag mu dox ndigal nag ki nga xam ni nag mooy sunu yaakaar di sunu wéjju di ki nga xam ni nag moo dundal islam bi ki nga xam ni Sénégal yëpp ko islam jëm ko kooku mooy kan mooy alaaji maam Thierno Mbacké moom maam Cheikh Awa la waaye mu dox nag doomam ju baax di ndigal muy sëriñ Thierno mii nga xam ni mooy jawriñam fii ci Touba Nasrou jox ko ci ci bis bi nga xam ni moom la daan woote ren nag ñu woote ko la 4 mai fii ci Touba Nasrou bis boobu nag Thierno amul lu may moom nit ku ne bisam nga am te nag bu dee waxante dëgg sëriñ Ceerno bu ñu ko fayee bisam bisam nu mu war a mel dina mel sëndam luwul dara ci àdduna lu xew ci mbokk yi ci bis yi mu jóg bu dee askanu maaram mu jóg lu xew ci diini ji mu jóg waaye lu xew ci taalibe yi nag sëriñ Ceerno Mbàkke jóg kooku nag su wootee su wootee bis bi nga xam ni ba cee am ndigal ci way juróom bu baax mi alaaji maam Ceerno Mbàkke kooku nag bisam kat yaakaar naa ni nu bëgg mu mel na bis bi dina mel noonu waaye ci kaw loolu nag ñi ko seqal te bokk ak ñoom commune Pekes bokk ak ñoom commune Ñaaxeen bii bokk ak ñoom arrondissement Mérina Dakhar ak arrondissement bii di Ñaaxeen nga xam ni dañu leen di cumuler ah maam Thierno ngi woon ñëpp di jiital nag ci wote bi maire de la commune Pekes muy El njaw Ndaw Thiam nga xam ni moom maire yi nga xam ni ñoo war a ñu ci màggal gi moo leen di teeru moo leen di dalal ki nga xam ni mooy ancien maire di Jibril Mbay bokk ci kër gi nga xam ni wëlër la ci Serigne Thierno Mbacké di kenn ci kër gi moom it ñu ngi koy woo ci bis bi di woo ay meeru njëng mi nga xam ni moo yore meeru Mérina xaar ñu ngi koy yëgal bis di ko yëgal nag si la maire de la commune Niakhène nga xam ni moom it ci kër gi la bokk di wëllëre di xarit di ko yëgal Lamp Ndiaye mi nga xam ne moo nekk ñaa Cilmaxa euh, mooy meeru ñaax maxa bi di ko yëgal nag Ale Ndiaye nga xam ni responsable politique la waaye kenn la ci Serigne Thierno. taalibe la xarit la mbokk la di ko yëgal nag euh, nguuda siis mi nga xam ne mooy ree commune nga njuuf di ko yëgal sama rakk bu baax di nekk mbéyeen Mor Sow mi nga xam ne moom itam lu xew ci commune bi mu ñëw ndax commune commune mbéyeen ak commune Pekes benn commune rek la di ko yëgal nag comme département bi yëpp am responsable ñu axee yi nga xam ne ñoo fi ne di ay di di ñoo xam ne dañu leen dañu leen dañu nekk ci comme ni nga Ñaaxeen bi di ay responsable sëñ Thierno bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn kon nag bis baa ngi noonu ñoo ngi koy def le 4 mai ci Touba Nasru sëñ Thierno nag koo ko fay borom wala nga wala wala nga fay ko li mu li mu li mu liggéey ci fii ko waajuram bu baax bi dël bu wootee bis ñëpp ngay gis ndax sëñ Thierno xeebalul kenn soxla du góor du jigéen du mag du ndaw ñi nga xam ne bokk naa ñoom diine ji lu waaye xewle sëñ Thierno jóg ñi nga xam ne ay taalibe lañu lu waaye xewle sëñ Thierno Mbàkke kooku nag su wootee bis boo xam ne bii nii da cee jot ndigal ci way juróomu baax bi bis boobu nag ñun ñëpp nañ ko fonk te jàpp ko góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn naar yi nga xam ni dañu daan dañu dëkk ci dëkk bi te fonk bis bi nga xam ni bu àjjuma ñëwee dañu daan teeru sëriñ maam Cerno eh, tabale yi tabale yi ñu tëgg ko maam Cerno ñoo leen xolam sedd ñooñu ñu ngi leen koy yëgal bis boobu nag cee maam Cerno yu jógee nag muy àjjuma ji nga xam ni mooy mooy le trois mais ci lay jógee nag daaru manaan ak Touba Rof jaar ci Maxa ànd ak cortège beeg ak ak taalibe yi ñu ngi koy teeru bu fa jógee nag jaar ña ci euh, Maxa ñëw ñaaxeen bu jógee ñaaxeen nag ñoo ko ji gi nga xam ni fa la ñuy def escale bu noonu foofu nag lañ koy teeroo bu ñëwee taalibe yi nga xam ni ñoo fa nekk ay magi taalibe ku mel ni seex mi nga xam ni mooy borom dëkk ba seex Fall ngi toog nga xam ni mooy borom dëkk bi moom dina mobiliser ñi nga xam ni ñoo war a siyaar sëñ bi sëñ bi ñu siyaar ko foofa moo ànd ak délégation bi nag ñëw fekkee ci Touba Nasrou nag su ko defee nag taalibe yi ñu am njàg mu sëkk ak ay teggin boole kook ak taalibe ñu teeru ko mu ñëw ñu wàcce ko dalal ko siyaare ko bàyyi ko mu noppalu bu setee di màggal gi le 4 mai ñu jàng alxuraan ji wàcce kaamil yi jàng xasida yi bernde yi ñu def ko guddi ga Mara Seck nag moo ko daan def ak na Samb kon daal bis baa nga noonu ñu ngi ko yëgal Sénégal yëpp di ko yëgal umma islamique bi yëpp Cerno bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen askanu maaram bi mu bokk nga xamni ni kii yësanam mu ci dara lu ci xew mu jóg lu man mën ci teraanga def ko ci ko kook li len seen bis kenn ku ne nag tey nag nit nak amul nak lu may bisam nañ ko fay ci bis bi kon nga bis ba ngu non yàlla nako ko yàlla nako commencé ci bis ma ay rahman rek way yàlla nako yëgal ci alhamdullilah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim